ngi tudd Amadou Ndiaye nekk ingénieur agronome expert en agroécologie et développement durable nekk également consultant ci Banque mondiale représenté leen fii Sénégal ci wàllum aménagement et culture fourragère en condition hivernales donc euh, tey am nañu contentement bu baax ànd ak suñu grand frère Bamba Mboup war également gunge suñu ay mbokk suñu ay frères mu nekk ñëpp ñi nga xam ne dañu bokk ci association FIS te nekk ay lutteurs donc yitte boobu moo ñu dajale fii tey moo war leen a gunge ci wàllum formation en agriculture et particulièrement en production maraîchère di ci am contentement bu mag di am yaakaar ne yàlla dinañ ci defal ndam liñ ciy xaar incha allah rabbi euh, lan moo motiver vraiment nga ñëw liggéey ak FILS ak surtout avec les lutteurs waaw xam nga euh, activité bi nga xam ne mooy lutte dafa nekk loo xam ne dëgg la euh, jeunesse bi bëgg nañ ko te mën nañ ko aussi waaye dafa doon lu lu passager loo xam ne am na âge boo yeggati xëy na dootul ma bokk ci say activité donc dafay baax ki nekk lutteur tey ci réew mi ñu fexe bu balaa mu yegg ci waxtu wi nga xam ne xëy na dina bëgg a changer activité ñu fexe ko préparer d'abord balaa mu yegg ci loolu rek fekk ye fekk na ko xam-xam bu mu téye ci loxoom boo xam ne bu lit bi paree rek dafay daal di mën a sóobu ci loolu wala sax ginnaaw heure bi mu nekkee ci biir làmb ji yenn saay bu amee temps mu mën a sóobu ci activité boo xam ne même bu làmb ji doxul dana ko mën a indil ay bénéfices yoo xam ne dina ko yombalal dundinam. tey yéen a tàmbali ko ak 10 lutteurs mais pare ngeen pour euh, jël des centaines ou bien. waaye effectivement yéene bi mooy bu ñu sañoon chaque lutteur. dafay am un verger dafay am une ferme parce que formation bi dinañ ko leeral ñun ak ñoom mais li wóor mooy damay yaakaar ne sax lutteur tey moo ëpp facilité ci Sénégal pour am financement mën koo dugal ci mbay mi gën a gis boppam ci lutte bi mais gën a gis boppam ci mbay mi. ndax la réalité mooy tey ku ci yàlla dimbali nga am benn cachet bi il suffit que nga am benn périmètre un hectare doy na mooy terrain football te loolu taxu koo cher lool ci biir réew mi boo ca jotee man ngaa liggéey loo xam ne yàlla mi ñu tim xam na ne weer wu dee ngaa fay kuy xëy di dem ci bureau. te loolu dootul amati benn lien ak sa activité ci biir làmb ji loolu mooy suñu yéenee ñu fas yéente ci ànd ak suñu grand frère Serigne Bamba Mboup ak yéen ñëpp yi nga xam ne également yéenañ ci euh, organisation bi vraiment di ci kontaan di wax ne suñu mbokku mbëri nañu gën a jàpp bu baax a baax te xam ne gannaaw làmb leneen am na te leneen loolu lañ ñëw pour fas yéene ko partager ak ñoom ñu sant yàlla di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam man maa ngi tudd Cheikh Amadou Bamba Mboup président association FILS formation insertion de lutteurs du Sénégal waaw di tey nag euh, ni ko suma partenaire Amadou Ndiaye waxee rek c'est pas dix lutteurs ça c'est vingt lutteurs ndax am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw euh, financement bi c'est vingt lutteurs quoi euh, Père Ousmane xanaa ñu ñu bamtuwaat ko rek. Euh, di nuyu suñu kilifa ibra mbay mi nga xam ni tey ci association bi la bokk nekk trésorier bi di la nuyu yow mi di nuyu lutteurs yi fi nekk yëpp di ko teg ci loxo laasana waa association FILS moom démb rek euh, ci kàttanu yàlla doon na doon na doon na euh, feddaliwaat cofeelam ci ndaw yi ci jeunes ci jeune jeune lutteurs yi ginnaaw démb ñu ngi formé cent lutteurs Euh, tey ñu ne nag dañuy former waat vingt parce que démb c'était en partenariat avec le 3FPT mais tey association bi ci boppam moo génnee ci ay euh, euh, moyen boppam financer formation vingt lutteurs bi nii lii yëpp bëgg Sénégal jëm kanam la parce que li ñuy wax rek tey en tout association FILS mi ngi former say six cent quarante jeunes parce que six cent vingt la woon tey vingt yi ci topp nii muy six cent quarante jeunes noonu lañ ko bëgg a wéyalee Sénégal yëpp fépp foo xam ne rek mbër mi ngi Sénégal rek bëgg nañu ànd ak yow former la gunge la ba nga am insertion parce que la jeunesse c'est l'avenir d'un pays te nit ñi dañu war a yeewu ci formation formation dafa am solo parce que tey ku ñu tàggatul pour nga mën a exercer wu ci lu bëri euh, mënul nekk il faut ñu tàggat la nga xam ñu former la bu ko defee nga am métier may wax toujours rek jeunesse bu ñu décourager parce que tey jii nii euh, li may wax rek nit ki jàng na am bac wala mu am maîtrise wala mu am master. mais loolu xëy na chance am la mais li ngeen di def nii tey di ko def muy une formation boo xam ni courte durée accélérée la tey attestation ba ngeen di am tamit da leen di jëriñ tey sécurité bi ñu def c' est très important mais li Amadou wax léegi mbay dafa am solo tey boo demee tey sànq maa ngi dégg laa seen di ko wax. pays yi gën a développé Sénégal di ci àdduna muy Espagne Italie États-Unis dañuy bay man nekkoon naa ci benn dëkk boo xam ne Italie mi ngi tudd Agrigento maanaam tubaab yi ëpp alal foofu ay baykat lañu te bay agriculture mooy avenir u réew moo tax nag mbay mi ñu ngi ciy woo ñëpp tey démarré nañu ci 20 mais dem maa ngi koy wax euh, euh, Sophie Diallo bu 3FPT nee ko bëgg nañu bu liy jàllee ñu financé ñu cent lutteurs yoo xam ni dañuy dañuy dañuy dañuy bay ki leen di formé aussi nekk tey macha allah ndaanaan comme ni ma ko waxee ci Matar euh, tey yamoo leen rek ci agriculture dina leen defal transformation céréale maraîchage yooyu yëpp da leen koy jàngal élevage moo formation am da ciy def xolam ak yéenem kon loolu lu am solo la ñu leen di gën a wax rek ni ngeen approché wu ci association FILS xam ne ñun li suñu yéenee mooy mooy seen avenir li suñu yéene mooy seen réussite li suñu yéene mooy yéen ñëpp ngeen am formation ñu gunge leen te yemuñ rek ci formation bi ndax la ñu amee convention ak la direction de l' emploi ku ñu formé danañ la gunge fexe ba jàppale la ba nga am xëy noonu lañ ko amee tamit ak direction de l'horticulture Macoumba Diouf ndax lii la doon xaar ci ñun ñu formé wu euh, jéem a xool nan la ñu duggee ci wàllu mbay mi ci horticulture wala agriculture bu ko defee moom mu mën ñoo jàppale ci yeneen kon nag Père Ousmane euh, loolu moo tax tey ñu dajoo fi euh, di ñaan yàlla daal lii ñuy def ni ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf waaye ñoo ngi jàkkaarlook Ibrahima Mbaye di coach ñoo xam ko ci écurie mu yoroon fi sélection de Dakar ñoo xam ko ci làmb tey jii euh, làmb dem ba mujj ñu am ay formateurs yoo xam ne dañuy jàngal mbër yi lépp loo xam ne da jëm ci wàllu mbay ba jàngat nga am ci loolu. waaw sant yàlla rek euh, di ñaan suñu borom tegal nu ci loxoom rek di këram bam mi xam ne sama doom la sama xarit la sama lépp la. Oh. di gën a partenaire am yi nga xam ne ñoo koy jàppale ci lii nga xam ne moom la bëgg a def jàppale ay moroomam yi nga xam ne ci réew mi seen loxo jotul seen ginnaaw lii dama koy rafetlu képp ku jàppale jeune lutteur def naa ñun mag ñi ñun nga jàppale. ñun lan rek moo ñu tàggale ñoom. 6 heures di matin ba 7 heures et demi ñu ne ñoom ñooy nekk. da nga xale xale day jógee entraînement sax ñëw doom lu mu jëndee fonde kon bu ñu demee tey ba bambam ñu xool na ay frère am am nañu tolof tolof wala am nañu ay coono mu ko teggil ci bëgg leen koo teggil ah loolu ku ñu ko defal ku ne ñu ngi lay sant di la gërëm ñun ñii rek la ñu am ñun bañ ko ba am ñu ay xarit ñun xale yu bëri ñooy suñuy xarit bu débb ceeg suba ngoon noor nawet ñu nag ñoom ñooy nekk kon kenn ku ci nekk soo demee tey ji bay ñaan yàlla yàlla defal la loo xam ne mooy nañ ci am lu ñu suturloo di ci dugal di ci bëggal seen waajur di ci yor seeni i soxna ak seen i doom kon loolu defe naa fierté lañ ko war a def ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla teg loxoom yàlla jàppale mébétam ba lii mu bëgg ci jeunesse lutteurs yi ah ñun ñi nga xam ne ñoo nekk xale yi da wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla ci yàlla def ba lépp lu ñu mébét ci lii daal suñu borom teg ci loxoom kontaan naa ci loolu nag ndax xale bu la xale bu bëgg a jàppale ay partenaire am la xale bu bëgg a jàppale jeunesse bi la président ñu ngi lay ñaan nga gestuwaat Bamba Mbuub lii muy def defalu ko kenn yow la ko defal yaa ko waroon def ak sa njaboot moom sa génnul njaboot gi waaye naam mi ngi koy def pendant trois ans wëlbatiku nga gestu Bamba Mbuub jàppale ko mu yokk ay jéegoom mën a jàppale jeunesse bi parce que bi ay ndaw lañ te am nañu kàttan lii muy def nii am na lu bare bare loo xam ne mu koy rëccal ci jeunesse bi kon nag ñu ngi la ñaan yow président nga wëlbati ko gestuwaat Bamba Mbuub ak ñi ngay àndal ñu jàppale ko ndax lii mën a jëm kanam loolu laa lan lay ñaan jërëjëf. jamono yi ngeen daan bëri nga wëlbati ko gis euh, jamono yi changement bi ñu jël seen i doom euh, di leen defal ay formation di dugal ay métiers seen bopp yow loolu ban jàngat nga ci am tant que ancien gloire. jërëjëf euh, El Hadj Ousmane. kontaan ci li ngeen wax ak kontaan ci li ngeen di def. suñu mbambam boobu kontaan ci li nga xamante ne moom nga taxaw ci biir réew mi. gis naa ko. yàgg naa koo gis. nga def ko defaat ko defaat ko defaat ko te ci dem nga bés suma dëkk amul loo fa deful. kon eh, lii dama ciy kontaan ndax man ci mbéy laa juddoo ci mbéy laa yaroo mosuma nawet àll. lu dul suma suma suma suma dëkk. di nawet bu nawet wàccee ma dem dem entraînement dugg ci làmb ji di bore ba ba noor bi jeex ma dem béyiwaat loolu laa doon def. kon su ma demee ba ñu indil ma njëriñu mbéy encore bu ma ko jàngal pour euh, ma xam leneen lu ma ci xamul woon kontaan rek laa def te di leen ñaanal yàlla ndax euh, lii nekk loo xamante ne dafay avancer pour nga mun a jàppale nit ñi euh, xale yi mun a dem liggéey am fu ñu jàpp ndax bore dafa da nga war a am foo jàpp pour mun koo def na daan naa yendu ci kanaan di gas fii ba sacré pour am lu ma lekk pour de de dem entraîné ji kon bu ñu demee ba ñu indi lii eh, seen chance la xale yi jàpp nañ ci waay wa xale yi yal nañu yàlla jàppale merci waay waaw onze billah bismillah inna wali yàlla asalaamaaleykum euh, di nuyu ñi fi nekk ñëpp assistance bi di wax ne maa ngi taxaw ak sama côté droite euh, ku ñuy wax euh, Laadum ak ku ñuy wax Jibi Mbaw ak ku ñuy wax Michael waaw di wax ne tey euh, ñu mel ni ñoom bu naam sa joom ñu ngi fii tey nag dañoo ñëw fii euh, si benn formation bu ñu war a def euh, cérémonie de lancement mooy formation agriculture waaw Ousmane Diouf yaakaar naa loolu moom mooy suñu présentation daal. lan moo tax ngeen taamu agriculture en tant que nga nekk ay mbër. waaw Ousmane yaa ngi laaj lu am solo parce que soo nee mbër moom maanaam mbër culture la te tamit bay maanaam dafa nekk loo xam ne euh, nit ku nekk maanaam daf ko war a mën. maanaam koom-koom mu ngi ci ba pare tamit xam-xam mu ngi ci kon nag tey sekkente fekkente ne yàlla dafa def ñu nekk ay mbër euh, li ñu war mooy euh, suñ defee formation garde rapprochée ba pare ñu ñëwaat waxaan ñu lu mel nii mooy culture ak agriculture li ñuy def mooy jéem cee dugg parce que tamit wax dëgg ne yàlla àdduna moom yemul ci bëre kase kase kase maanaam lii nga xam ne moom mooy bay dafa bokk ci loo xam ne nit daf ko war a def parce que tamit euh, maa ngi dégg démb sama rakk ko wax ku ñuy wax Kona euh, réew yi gën a développé ñi nga xam ne ñoom ñëw ci ëpp alal mooy baykat yi. kon nag ñun wax dëgg na yàlla li tax ñuy dang dangi suba ngoon pour maanaam yóbbu lu ñu yóbbu kër waaw kon nag tey su yàlla defee ñu dugal ñu ci lu mel nii sëñ Bamba Mboup boole ñu ci lu mel nii mënuñu lu dul sant ko gërëm ko maanaam jéem a def la tout ba formation bi ñu jéem ko def dugg ci bisimilah rahmaani rahim eggale ko alhamdulilah rabbil alamin